dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gii di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal naan ñu Sénégal am na dëgg ci kaw organisation mondiale de la santé maanaam OMS ndax OMS ay bés yi nga xam ne moom la ñu génnoon dafa wax ne chloroquine bi maanaam bu ko kenn jëfandikoo ba waa France daal di koy dakkal Sénégal nag daal di yëkkati kàddoom wax ko ci kaw ne chloroquine bi du ko dakkal benn yoon professeur Moussa Seydi samedi bi nga xam ne moom la ñu génn bi ñuy def seenu bilan daal na koy xamle wax njariñ li nga xam ne chloroquine daan na koy am nee na efficacité bi nga xam ne maanaam ma ngi si amul kenn koo xamante ni mën na kaa werante jamono ji te faj gu gaaw lay faj ba pare effet secondaire bi bëriwula la Assane Samb xëy jël xalimaam ci yéen a kaay di réew mi quotidien ne ab fake news médical la ñu démasqué yéen a kaay gii di libération mu ñu xama naan ñu chloroquine bi jamono ji maanaam li muy faj doy na waar ndax lu toll si ñetti téeméer ak fukk ak ñaar ci ay nit daan nañuy wér ci 48 heures yi maanaam ñaari fan yi yéen a kaay gi di réew mi quotidien muy xëy ñu xamal lan ñu lu jëm ci wàllu dem bi ak dikk bi maanaam transport interurbain bi daan nañu koy koy ubbi ministre Omar Youm mi nga xam ne moom lañ dénk wàllu woowu demoon ci gare routière bu Baux Maraîchers séddale fa ay masque ba pare dalal xelu ñi nga xam ne maanaam ñooy transporteurs yi yéen a kaay gi di Sud Quotidien mu ñu xamal ñu bu nu xëyee di wax ne Sénégal ñi fi amee coronavirus jéggi na dayoo maanaam bu mu bett kenn ndax transport interurbain bi nga xam ne ubbi nañ ko na Sénégal yëpp xam ne jàngoro ji dafay gën a law ci réew mi yéen a kaay gi di Vox Populi mu ñu ñu tere gi nga xam ne tere nañ ko ay rassemblement dafa mel ni ñiy dem ci géej gi dem yi ñoom bokkuñu ci ndax week-end bi dafa mel ni promotion la coronavirus amoon ndax ndaw ñu bëree bëri maanaam ñoo ngi woon ci place yi nekk fa di gunandaat yéen a kaay gii de Les Échos mu ñu xamal en tout cas li am ba des te askanu kenn ku nekk war koo xam kenn ku nekk war koo moytu mooy spécialiste yi borom xam-xam yi maanaam ñoo ngi dànkaafu ñoo ngi alerté ndax nee nañu li nga xam ne mooy yoot Sénégal maanaam baaxul giraawaleeg musiba ma ba kumba mën naa am ci réew mi docteur Abdoulaye Bousso nee na giraawaali maanaam saa su nekk mën naa am ci Sénégal su dee moytuwuñu ndax grave yi dafay gën di yokk ñiy faatu di gën di yokk journal bii di Vox Populi docteur Abdoulaye Bousso ne nag jàngoro ji ba léegi ni ma ngi fi te ni mu doon gaawee wàlle noone lay gaawee wàlle te Sénégal mën naa déborder Sénégal mën naa dugg ci catastrophe Sénégal mën naa dugg ci musiba te li nga xam ne moo am ci yeneen réew yi maanaam mën naa am ci réewum Sénégal bu ñu fagaruwul te jamono jii li nga xam ne maanaam moom la ñu nemmee ko dañoo bàyyee ko te bëri na ñoo xamante ni dañuy feebar toog seen kër ñu wax leen ñu lànk kandaare bañ a dem hôpital bii di libération mu ñu xamal nañu bëri na ay gox yoo xamante ni amee woon nañu coronavirus jamono ji amatu fa maanaam daat nañ koy fay enquête yéen a kaay nee na moom gisu loolu li mu gis li xeeñ neexul ci woppi coronavirus ndax dafay gën di law ci réew mi réew mi ko di jee mu ñu xamal lan ñu ginnaaw ñetti weer yoo xamante ni jàngoroy coronavirus am na ko ci réewum Sénégal li ñu nemmeeku maanaam mooy Covid 19 dafa ceinture Sénégal dafa wër Sénégal kàpp gox yëpp ñoo ko amee yéen a kaay gi ñu fekk fa Guy Marius Sagna la mu nee na njiitu réew mi di président Macky Sall dafa bëgg a taafantaloo li nga xam ne maanaam mooy woppi coronavirus ji saax-saaxee alalu askan wi jël ay nitam maanaam jox leen xaalis su réew mi ñuy gundaandaat Dakar Times ak réew mi ko quotidien ñu xëy di ñu xamal lan ñu limin jàkk tey ji la ñu koy àtte ca Paris la France li ñu koy toppee mbirum geram mbirum luq njur waa nag àtte boobu journal bi nee na soo muy tuulee dañu koy dàq yéen a kaay gii di la turbine mu ñu xamal lan ñu ñi nga xam ne ñooy militaires yi week-end bi tàngoon na jër si ñoom ndax am na militaire boo xam ne ab taxi moo ko fàtte ci liberté 6 ab militaire boo xam ne dafa joggi maanaam ab mine diwaanu Ziguinchor laas yéen a kaay ñu fekk fa Cheikh Mbow directeur exécutif bu COSIDEP la mu xam le nee na année blanche mën nañu ko njortu mën nañu koo xaal ci réew mi te lu nekk la réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu Hissène Habré ginnaaw ñaari weer yoo xamante ni toog na ko ci këram maanaam dina delluwaat sa kasu ba yéen a kaay gi di direct news mu ñu xamal lan ñu Arabie Saoudite ajuk 2020 gi maanaam ñoo ngi koy waajal bu baax a baax waaye nag dañu koy xoolaat ndax ñi nga xam ne doon nañu leen jox ay quota yu bëri yëpp dañu koy daal di wàññi ba ci Sénégal a kaay fekk fa maître ma soxna kan la mu xam le nee na Senelec jamono ji dañu ko saax-saaxi daal di koy tënk jël lépp jébbal ko ak li la nga xam ne moo fa am ci ay tojaange doy na war jéggi na dayoo Makhtar Cissé am na geneen tojaange goo xam ne ñoo ngi ko koy tuumal ci centre solaire bu kawoon yéen a kaay gii di wal fajiri mu xëy di ñu xamal la ñu lu jëm ci mbirum faux billets ak drogue bi jàppa jonge ci réewum Sénégal tax na FBI yi jamono ji ñoo ngi teg bët Sénégal l'observateur mu ñu xamal la ñu lu jëm ci wàllum séddaleeg dund gi am na nag ay sénégalais yoo xam ne jamono ji tas ndax boo demee ci région bu Diourbel lu toll ci quatre-vingt-cinq mille six cent vingt-neuf ñoo xam ne waroon nañoo am ba léegi ne jotaguñu si boo demoon diwaanu Thiès lu toll ci cent neuf mille huit cent neuf personnes yoo xam ne waroon nañoo am te France dali xëdeen boole wuñ leen sax ci ñi war a am ñi nga xam ne ñoo nekk Kolda ak Louga dañoo mer ba maara day taali su dee nag diwaanu Kaffrine ñi nga xam ne maanaam ay salarié lañ ñoo fa nekk di xëccoo dund gi ak ñi nga xam ne ay néew doole lañ yéen a kaay gii di sunu làmb mu xëy di ñu xamal lan ñu Ama Baldé mi nga xam ne moo suur mooduloo ginnaaw nag roi des arènes bi ko mu Mohamed Ndaw Tyson yóbbu Pikine Eumeu Sène yóbbu ko fa ndax Ama Baldé bu janoo ak Modou Lô ko mën a fuqarti yóbbu ko Pikine loole la journal bi xëy di laaj